waaye mm, lu euh, waral kii bi nii dangeen di waaj a ubbi wala. waaw liggéey dañoo liggéey ba pare doon karole sunu njaboot bi woon doon ñu ko nettoyé fekk ñoom bi jiitu lool sax avant ñuy woor lañ fi ni ñu woon daal ñu ñëw nettoyé jàpp yëpp moo tax biñ ko ubbee nii rek. di waajal julli ñoom ñu ngi di indi fi ay botol indi fi sel yi ñuy raxasoo ñoo di nettuwaay jàkka bi ñoom ñu baax di ñaan yàlla yàlla yàggal seen taxawaay yàlla yàggal seen aada incha allah ñu bëgg nañ julli waaye bu ñuy jullee comme ni ñu ko santaane rek noonu lañ koy defee di def amante espace mu diggante balaa ngay julli obligatoire na nga am masque raxasoo saabu

fekk na pare wuñu aussi tamit liggéey ñu fi ñu jaaxle parce que dañu liggéey waaw. waaw surtout surtout thermoflash aussi tamit yooyu yëpp jàkk yi war jàkk yi war nañu ko soxla. raxasukaay jàkk yi war nañu ko soxla donc loolu yëpp tamit loolu bu fekkee ne suñu autorité yi appuyé nañu si loolu yaa waaw yaa ngi ko waaye dégg nga comme comme tout le monde waaw mais fu mu nekk nii dañuy liggéey dañuy parce que yow xool nga si biir bon donc dañuy karal. comme comme ni ñu liggéey nag. moo tax li ñuy yàkkamti quoi li ñuy yàkkamti ba def loo xamante ni tamit aussi daf ñuy yàqal suba. waaw parce que yàlla rek a xam yàlla rek a xam. d'accord mais sax dara jël dara jëlul yàkkamti si àdduna waaw lu toll ni màkk dañ ko tëj lu toll ni paas ñu tëj ko. quand même ba yoo xamante ni bu ñëwee rek dañuy def naan unité dañuy def naan. ñuy def naan parce que tamit yaa ngi may jiite attaque yi fii ay 6 heures matin wala 5 heures matin bi ñu ma sax 50 personnes fii ñëw donc ñu ñu ñu ñu ñu ubbi te am ci loo xamante ni nag def naa ko baax na ci def naan ko baax na ci ñi faral di wax yëpp nag mooy ñuy ñëw ñuy julli tabaski ba tabaski korité ba korité ñuy solo nit ñi waaw loolu nag laa amoon lu ci jërëjëf